mu di maire républicain bi nga xam ne daatul nangu kenn jiite ko ci département bu ndax te résultat yi nga xam ne ñoom ñoo génnee ci urne yi am na ci lu ëpp juróom fukk ci téeméer ba jël ci élection yi ci département bi. tànn gi mu ma tànnoon mooy lii dëgg ka ko dindi woon nag war na xoolaat boppam parce que euh, je pense que moom 30 pour cent la gagné xaw ma 31 pour cent am deux cent voix donc nekk lu sori ci suñu ginnaaw te mënoo nekk ministre am ab député ci sa commune. candidat bi génnee ci sa commune yéen ñett trois grosses forces normalement mënu ngeen a romb trente trente et un pour cent mënu ngeen a am deux mille quatre cent voix je pense kooku war na xoolaat boppam. ñu falaat ko mu jiite conseil municipal bu Refane docteur Djibril Thiaw tàllal loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo ko woteelu woon pour ñu mën a suqali Refane bu baax a baax. parce que ñàkk ànd gi war na ne àndunoo yow kooku moo ñuy permettre ñu def expression de la démocratie. te ñooñu aussi àndul ak man am na lu ñuy wax loolu lu ñuy wax lu am solo la dem dinaa leen dem dama koy dégglu euh, décrypter ko jéem a analyser message boobu li nga xam ne ay manquement la te aju ci man ñu xool nu koy defaree. li nga xam ne ay manquement la te aju ci keneen koo xam ne beneen autorité la aussi dinaa dox ba ci moom ne ko ah waa Refane kat nangam lii nee nañ ay manquement la te ci yow ci yow la aju. commune bi nekk ci département bu Bambey nag village yëpp am nañu courant fi mu nekk seen benn jafe-jafe la ñu am mu jëm ci wàllu ndox mu sell munu mën a naan